Salut les amis de Sport TV et de Babo Show. Merci encore gars de la confiance renouvelée. Merci de des likes, merci de des abonnés, merci également de baisser les commentaires. Hein. Un plaisir renouvelé chaque fois. De partager une information inbox sénégalais fait pour le Montenegro, 14 régions du Sénégal. Rokhoukhadi, Gorgokhadi, ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci l'hôpital yi ci kër yi tëdd feebar. Yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñu wér ak jàmm ñu ci kaso yi ngeen xam aussi erreur judiciaire gi de defu moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen ni de njaboot ñi dëdduwaat dina suñu borom xar leen àjjana fi daw si yi te yéexee ñu avance lance ensemble dans la magie de sportive de Baba Show, l'actualité en continu gars actualité nous fait savoir waxtaanee Sadio Mané mi nga xam actuellement mi ngi am ay difficultés du côté Al nasr nag tey ñu doxaat ko Benen, chance wax également ci équipe nationale du Sénégal li fay xewati di wëy yàgg fa xew di fa wëy di fa xew jamono ji dañ koy daal di waxaat mais aussi d'inviter un invité ngeen dem ci Baba Show c'est à ko doon il li nga un nouveau format Ligue des Champions 2025 bi nan la nar a parce que lu bëri dafa changé ci cadre football donc pour ngeen gën a comprendre Ligue des champions bi di ñëw nan lay démé match de poule yi dootul am nan lay demee itu ngeen fas ko gis fofu mais également di leen wax gaay yi di leen gën a dem leen jëli sen carte électeur yi yóbbu leen sen récépissé yi ñi nga xam ne nag récépissé dañ leen réer dem leen fa ngeen yóbbu sen carte d'identité dinañ leen wax na ngeen fexé ba jot sen carte électeur ngeen mëna xam fan ngeen di voter parce que mbiri jot na gaay yi wax naan di jot jot na gannaaw dé bien entendu pendant ce temps Jude Bellingham et son idole ngeen gis leen fi ha ah, ñuy photo wu jëm nak ci nga xam ne donc kooku di euh, donc partenariat bi ñam ak Adidas Jude Bellingham qui retrouve son idole, hein, sa référence, Moïse Zidane pendant ce temps nag Onana moom gars gis ngeen ko château bi la daal di jënd ah, Onana château bu jar 6,5 millions d'euros la daal di jënd le gardien donc de Manchester United ah ma il profite bien de sa vie qui ah, a nga xam mooy donc André Onana critiqué mais mi avancé comme on le dit pendant ce temps aussi euh, li moy que euh, français yi nga xamné ñom jëmono ji dal indice UEFA bi nañ ci yek mais ñeneen gëna a rapporter ay points mi ngi Paris Saint-Germain la top ci Stade Rennais Marseille ah, ak OL ak aussi nga xam donc Lille ñoo leen di gëna a yokk ay poñ pendant ce temps Marcelino ancien entraîneur de Marseille yor Villarreal war a dajateeg nak Marseille mom nak fi ni ne nii RMC nee ay garde du corps lu yóbbaale du côté de l'Olympique de Marseille gannaaw biñ ko doon menacer avant mu fa daal di jugee donc Marcelino mo ba légui daal faté li ko Marseille waxoon et pourtant bo fay jugee amul défaite ah kii nga xam ne l'entraîneur de Villarreal pendant ce temps Eric Ten Hag ñi jamono ji ñu ngi wax li nga xam mooy kan moy successeur kan moko na remplacer ñi ngi wax tour yu bari gaay ñi ngi insister ci Zinedine Zidane di insister ci désert bi di insister ci yenen ah, entraîneur yo xam ne daal mën a ñëw au cas où Ten Hag nar fa jóge kii nag di Juan Laporta gannaaw bi nga xamante nak mom ñëwaat na nek président bi eh, Barcelone gannaaw ba fa jóge woon mu daal délu ci mom nak dafa jël bataxa jéglél ko supporter yi fans yi ko daal di jàppale ba mu wa di leen jaajëfal wax na également liggéey mi ngi soko a pendant ce temps également ñett ñi muy nga xam ne donc Arsenal Liverpool Manchester City kan mo ci na a jël championnat bi en tout cas ay benn poñ la ñu rawante ku nek li mo la dese ci ay match et donc ce sera très très très déterminant en sachant que nous avons donc Arsenal euh, sous Djoum am nañ match en retard pendant ce temps Vara également le joueur de Napoli Paris Saint-Germain intéressé nous ci Marseille plutôt euh, Manchester intéressé nous également ak club Mon bug bug même fekké dem Real la légui dal fim def melni bokul ci plan pour à Real Madrid motax Paris mi ngi xol benen euh, option pour dal koy recruter Marco Reus également nga xamné des joggé du côté Borussia Dortmund mom nak ay club nek ci Arabie Saoudite également MLS ñom dal ñokoy xëccio de ji le joueur légendaire du Borussia Dortmund qui a une carrière presque à 100 Borussia Dortmund ko également donc aussi Riyad Mahrez moom mi rendre hommage ki nga xam donc Jamel Belmadi ne na ko même bu fekkee ni ay échec la jógee duñu fàtte ci échec ci ñu daal yóbbu joxaat ñu suñu ñaareelu étoile ci coupe d' bi ba pare 35 match yoo xam ne amuñu défaite li ñuy ñaawlu également gars yi mooy sénégal fédération bi daal dañoo yabaate jégalu ci wax ji quoi mais maillot yi ba léegi équipe nationale bu petite catégorie u yi et ñu leen jox ñu sol maillot yi quoi même bu dee ay match kii yooyu donc pour man dafa il est en difficulté mais du moment que Talisca tey de jouer donc Ligue des Champions de devait réintégrer le groupe donc a également l'opportunité de se relancer parce que Taliska actuellement c'est l'un des meilleurs buteur hein, de Al Nassr hein, en 27 rencontres il a marqué 25 buts Sadio Mané depuis le mu jógee ci CAN il léegi tolof tolof hein, but et tout on espère qu'il va retrouver sa confiance et qu'aujourd'hui également euh, ñi ngi koy xaar étant donné que Gaïa yi wax Al Nassr de bëgg après euh, parce que contrat de 2026 donc 2025 daal bu ñu mënee séparé avec Sadio Mané ay rumeur mais c'est pas encore fondé mais tout ce qu'on sait que actuellement Talisca a pris de l'avance sur Sadio Mané il y a nombre de joueurs qui nga été euh, Ligue des Champions champion Asie, même si Fekene Sadio Mané Talisca yàgg nañ ensemble, aujourd'hui Mané doit se relancer vu qu'il va réintégrer l'équipe pour la Ligue des champions asiatiques. yé gars yi woy de like, woy leen abonné, on avance ensemble dans la magie de sportive de Babacho Show. Dem leen jëli seen carte électeurs. dem leen ci Baba C'est seetaan règle FIFA bi nga xam donc jëm ci Ligue des champions bi di xew UEFA plutôt jaa ngeen